alors <laughs> lan moo fi bees le président de la république euh, fait un gouvernement de vingt cinq ministres mhm. quoi de neuf le président de la va a Touba à Tivaouane en Mauritanie en Gambie et cetera et cetera mhm. quoi de neuf mhm. quoi lan moo fi bees pour le moment. d'accord alors euh, Pa ci yow la ñuy ñëw parce que euh, sànq yaa ngi wax euh, bi professeur Mounirou Ndiaye di wax ci inflation njëg yi yu demee noonu nga nga nga def nii pour quoi lan moo la étonné. ci le fait que tey defuma ni de dama ko yii. pourquoi voilà très bien. la réponse elle est simple. dama déglu professeur bi déglu kilifa bi. Mhm. déglu sanu bi. Mhm. damay tiit te dinaa ko wax ñëpp dégg je pas à, à, au niveau de suffo suffoqué mm -hmm. mais damay tiit déglu naa kilifa bi mais damay tiit xam nga damay mhm. tiit damay ne mais quand on me parle de plan triennal mm -hmm. de 60 à maintenant c'est ce plan là qui a existé moo fi am 60 ba léegi ay plan jaar na fi moom. ay plan la ay borom xam-xam ay. ay tonnes plan si quand j'écoute ça. Oui. il la réalité kilifa bi. Mhm. du pouvoir de l'État. fi moo sutee mu ngi wax système anti système man ma bokk ci ñii ni nga xam ne gëmuma système gëmuma anti système li ma gëm mooy état buy exister un leadership prépondérant. Mhm. bu baaxee système ba baax bu bonee système ba bon. loolu la ma mais na après am na loo xam ni débat la mais tey fii Sénégal toll. Pape euh, kii Moustapha. ñu wax ma ne ma tout le projet du PASTEF. énoncé sur dix ans. arrivé à ce stade là c'est juste à la limite du pipo ci dégg-dégg parce que la réalité du pouvoir va être là. am li kilifa bi wax su confirmé wo mooy kon waa PASTEF amuñu woon projet. kon waa Pastef amuñu xam-xam kon waa Pastef bëgguñu réew mi ci dégg-dégg wala dañuy naxaate wala dañuy naxaate et ça je, je, je n'ose pas l'imaginer maintenant la réalité c'est quoi mm -hmm. vous êtes un entraîneur de football vous êtes confronté à une équipe adverse am na loo tegoon def vidéo mm-hmm. xool say joueurs ne leen diw nii lay ñëwee mm-hmm. nga ñëw dawal cinq minutes ci match bi mu teg ñaari bis comme Real ak City mais tu t'adaptes <laughs> foofu la ñuy xam-xam-xam <laughs> nga nekk coach. kilifa yi wax nañu parce que li ñu wax nag ñoom ay expert lañu te wax dëgg yàlla tuuti nañu ci di leen weddi. waaye un plus un égale deux laajul xam-xam xam nga moo la lan Idriss premier fële ca Libye ba ka Kadhafi di wàcce en 1969 c'était quoi le roi mu am nu mu doon doxale jël alal ji jox ko anglais yi jox ko ñëpp jox ko tubaab yi français yi. ñu gàddu pétrole bi ak seen ay compagnie Kadhafi en quatre ans il nationalise toutes les ressources du pays ba pare na leen yéen li ngeen mën am mooy ay pàcc bu ngeen bëggee ngeen investir foofu nag la la mbir mi nekk moo di ne aujourd'hui aujourd'hui su fekkee ni que Sénégal dafa war a créer des richesses dafa am fu mu ko war a jëlee soit on est indépendant soit on ne l'est pas. Pour être indépendant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut se départir du cordon ombilical bi nga xam ni moo nu fàtt boobu ba léegi cet esclavage quand vous avez un continent où plus de 300 millions de personnes ont été déportées nit ña fa des bu nu amut foule surux tey jii nii le panafricanisme c'est quoi c'est ce que le PASTEF a appelé mm -hmm. c'est ce qui a fait naître le PACTEF au Cameroun mm -hmm. PACTEF fële mu sukkandiku ci africain yi yow à partir de l'information bi sincère nekk ci réseaux sociaux yi te nekkutoon dans les canaux traditionnels les canaux traditionnels d'information c'était quoi mmh. ce sont nos média yi à des exceptions près je cite Walfadjri mmh. je cite Sud bu dee Sénégal ak ñenn ñi et dans le tas ci organisation depuis 60 à maintenant mmh. on avait une tradition d'information qui se limitait à nous dire le président a dit le président a reçu ay boroomi xam a ko doon def am xam-xam lool. Mhm. waaye xam-xam taxut a réew. daa am xam-xam. boole ko jikko bu rafet. pour yow li li Fatou Blondin wax mooy mooy li am il faut du courage. décision la. décision la maanaam tey. Mhm. ñëw nga falu nga ci réew mi. Mhm. da ngay wax ki lox sa borom. ne li ma bëgg a def danaa ko def. buñ la nee ne la non vous savez les tubaab les institutions de Bretton Woods le FMI la Banque mondiale euh, l'évaluation les institutions euh, par rapport à la notation du Sénégal. Oui. la dette extérieure et intérieure et cetera. mënul paase fii mënul lii. sawaay mhm. dafa am loo xam ne bu yàggee soof xoolil bu yàggee soof. Mhm. dafa am loo xam ne bu amee kër la kër ga yaatu la. Mhm. composite. plusieurs maisons plusieurs personnes des millions. ngeen jël décision je parle pas d'économie solidaire bi nga xam ni mën nañ ci am loolu ak loolu. cent francs par personne. cent francs par kër en passant exemple mais ci réalité. ci réalité ma chuté. ci réalité Moustapha. oui quand vous avez ci la ma Samba Tall Sarr doon wax ak Clédor. trente cinq matières premières jàpp trente sept. ci biir réew mi ci biir Sénégal. waaw léegi yow loolu da ngay ñëw toog bon mel ni loolu existé wul ne bon il faut que ma waxtaan ak gaañ bi ñi ci biti. Hmm. pour xool nu maa def l'Afrique à la ZLECAf la zone de libre échange continentale africaine. Hmm. cinq états moom lu souligné pour que ñu mën a am force bu ñuy permettre ñu industrialiser dem ci benn niveau bi. Hmm. mais loolu ça commence par ce que le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a fait. vous allez rencontrer le voisinage proche nga waxtaan ak ñoom saafonte ak ñoom. teg ay plat Mm-hmm. ngeen lijjanti seen bopp am pas-pas ak fulla mm-hmm. mais ça part et c'est sous-tendu par la haute sécurité très cette sécurité la mm-hmm. elle est militaire vous vous organisez ngeen am force nous avons quatre cent millions d'habitants en Afrique de l'Ouest ñu xool lu ñuy def ak ñi des ànd ak yàlla na ànd ak yàlla alors très bien Papa Assane Mame Birame euh, politique de de souveraineté parce que débat bi euh, professeur moo ko teg dégg ci euh, Cheikh Seck ak Fatou Blondin mais est-ce que ci monde bii ñuy dund dans le monde actuel nga xam ne nit ñi dañuy dem di ñëw nekk ci réewum Sénégal moo xam ne professeur wax na ko ñëwaat na ci li ñuy utiliser lu bari du ma li ñuy dundee sax mais li ñuy utiliser lu bari suñu xooloon taabal yi ñu wër li ñu sol ak li ñu kii li fi ëpp. Mhm. dañ ko jéggaani andi est-ce que dans ce contexte là souveraineté. mën nga ko fee jaay est-ce que jëmuñu ci benn situation bu nar a pour ñun.